léegi nag ci walu boobu élection yoy Karim Wade ak Khalifa Sall dañu wara bok luy ndeyu sa yu ñu def élection ñoo ñaar bi bok pour la Khalifa Sall ak Karim Wade ken waru leen téré ci Sénégal ñu bok élection Karim Wade dafa wara ñibisi ñibbisi de tous ses droits tey l'ol la la demande sociale wax am na période am na période boo xam ne 2012 Sénégal yëpp d'accord nañ ñu jugé ko nangam nangam waaye yow kese pour la dama ne sàcc du dàqe sàcc sàcc du sa dàqe sàcc wala làq sàcc di dàqe sàcc waaw ah oui loolu moo fi am loolu moo fi am

boo ko jàppee it ñu commencé di wax lii la wala Sambati Ndiaye alors que c'est pas ça la l'argent du contribuable aussi dafa war a dem ci askan bi on doit limiter les dégâts oui bu jaree xalifa ak Karim bokk ñu pousse élection yi dañ ko war a def si techniquement wala politiquement matériellement mën na nekk ñu retrouver seen droit de vote bokk su fekkee bëgg neen bokk aussi nekk éligible

góor doon na góorgóorlu c'est vrai Abdoulaye bi mu fi nekkee yokk bi doon na bari ba gaay yi di wacc ci tali bi ak ba pare nga ñàkk courant courant bi cher nga ñàkk ndox ndox bi cher loolu mënul nekk ba pare ñu bëgg nag li ñuy dundee yokk li ñuy dundee bu yokkoo salaire dafa war a yokk mais salaire yokkul li ñuy dundee di yokk mënul nekk léegi man dégg naa Macky Sall ci benn kiyam boobu mu ngi dans l'opposition mu ne bu affaire yi yokkoo c'est parce que état bi moo yokk ay taxes waaw kon léegi état Sénégal la baye taxi waaye la baye taxi jeex comme ça dara bañ yok. mais le panier de la ménagère moom non non d'accord ne nag dëkk que màgg mu lu doon jar 100 francs il y a 30 ans mënul continuer di jar 100 francs ba le comprendre nañ ko moo tax kon bu dund gi salaire aussi boo daan 100 100000 il y a 30 ans mënoo ko Euh, tey aussi donc ça veut dire da nag dafa war a ànd bu euh, dund gi euh, njëg yi chéré aussi euh, nit ñi li ñuy